waaw wuy ma waaw. man sa numéro laa soxla. sama téléphone nga nii. xaritu policier anak. la nag. gendarmerie kay. xar gendarmerie la nag. booy bàyyi gendarmerie. waaw baax na. célibataire gendarmerie bu ñu la jàppee duñ la baal. mu ne ñoo mu ne ñoo kii tamit.

xam nga koro xaw dof loo nga fi kaaw. grand pardon bi. yaa yàq xelam. non koro su toogee benn moment ma ne ko mais booy booy mbay mi doo ko xool ba xam dugalul affaire mu ne man kala naka aana mbay mbay man xoolal mba. waaw non naa lay baal dama la laaj dara nga am nga lu bëri dama